mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk seen xarit Pape Malick Mbaye dafa am nit ñuy woote ci suba ba léegi di wax ci El Hadj kenn Kende El kenn Doudou mi ngi ci jàmm dara jaru dara dalu mi ngi ci jàmm mi ngi ci wér ku koy ñaanal ñaanal ko gudd fan ak wér ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku mën a partage vidéo bi nag nga partagé ko parce que boobu ba léegi nit ñi ñu ngi woote fu nekk ci àddina asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. aousubillah min asheytaani rajim bismillahi arrahmaani rahim bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki àddina bi bokki Sénégal e, vidéo bi ñuy dugal rek dafa am ñoo xam ne ñu ngi def statut e, di wax loo xam ne ci alxaaji Dudu Kende wérul ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla may gudd fan gu ànd ak wér yal na ko yàlla defal sutura àdduna ak àllaaxira ñuy wax nit ñi ni leen statut yooyu nit ñi di dugal di wax loolu ci moom amul wéru na ko ñëpp ñaanal nag jàngal ko fatiha falaxek naa salaatul fatiha ñaan suñu borom yàlla na yàlla kuddal fanam ci barke yonent bi barke Serigne Babacar Sy wasalaamu aleykum wa rahmatullah